wala ñu indi leen benn jàmbaar boo xam ne ne dafa bàyyi dara pour am dara sacrifier un luxe temporaire pour avoir un avenir stable Pape Sidi nga li ma si yeggali waxaat mooy si li fi nga daanalee si homme noir bi Pape Sidi beneen problème bi du du ñun la de ñun nee lu tax beneen problème bu nekk ñun mhm. suñu université bi kan lañ ko tuddee Cheikh Anta toj na àdduna nag nga lool mhm. ah? lan la bokk na sunu li Cheikh Anta Diop créé ak li li mu xamale est-ce que bokk na si sunu système éducatif ñu ko jàngal primaire. déedéet dinañu ko jàngal secondaire. mais parce que li ngay jàng yow bindoo ko ah? kon kon comprendre nga fi may waxee ah. Pape Mor dama leen nettali benn histoire bu gàtt rek. baal ma je vais prendre une à deux minutes pour nettali la histoire bi indi li ngay jàng nga koy jàng yow te li may wax c'est des faits avérés. Mm-hmm. dafa am benn waay bu tudd Valière. gouverneur de l'Afrique occidentale française dafa dikk ndar toog ne day conquérir Sénégal dem xeexi Fuuta ñu duma ko mu xeeti xeexi Kajoor ca ñu duma ko mu xeexi Saalum ñu duma ko mu tegale ñetti defet mhm. mu yónni ay nit ñu ñuul ne ñun ne leen mais xoolal leen ma ñii lan mooy seen secret ba ñu am ay stratégie de guerre yu extraordinaire nii. Mm-hmm. ñooñu ñëw ne ko dafa am benn université bu leen di former da leen di former ci gestion de la cité wax leen naka la ñuy doxalee seen dëkk partage des biens équilibré université boobu mu tudd université bu piir bu Xaali Amar Fall Pire Sanoxoor mu ne ah ñu ne ko université boobu boo fexee ba kenn dootu fa jàngati. gaa yi dootuñu am xel Valière daal ne xam naa nu may def dikk li ne day taal ci université bi comme waa Pire yàlla may na leen ñu wan leen ne seen daara ji danañ ko ñëw taal si université boobu moo formé Thierno Souleymane Baal papaay Seydi Omar yu taal papaay Serigne Touba ki créé daaray Koki université boobu moo ko formé université boobu moo formé ku ñuy wax Maba Jaxu Ba ca ñooro moo formé ay doomi Sénégal yu dut jeex te ñooñu ay constitutionnaliste lañ dañoo xam àdduna te lépp ci diine lañ ko jaare Valière xam nga bi mu demee lu mu def bi waa Pire yégee ne Valière mu ngi waaj a ñëw pour taal si seen université bi dañu jël seen téere yi gas ko suul ko jël benn bant samp ko fa Valière di ko taal université bi léegi Valière moom mu def rapport daal di bind ne taal naa daara ji gënoon a mag ci réew mi di Sénégal li ma ci jublu mooy ñii li ñuy jàng man maay décider lan lay doon ñii dinaa def ci seen réew mii de telle sorte que ñi fi nekk sama xalaat ak sama bëgg réew man sama réew la ñuy bëgg ba dañuy créer lu ñuy wax ay personne assimilée une personne assimilée c'est quoi c'est quelqu'un qui noir qui est noir de l'extérieur mais qui défend l'intérêt du blanc cest à diir li ngay jàng jàngoo ko pour yeewu da nga koy jàng parce que dafa am ku décider ne yow loolu nga war a yàmb foofu loolu nga war a jàng foofu la sam xel war a yem léegi nag bu fekkee doomi Sénégal demuñ ba mbëkk rido bi mbaa ba mbëkk miir bi daal ne ah mais li ñu jàng pourquoi lañ koy jàng imaginel fii Sénégal da ngay gis xale bu juddu crèche 2 ans wala trois ans ba ba ngay am 18 ans wala 25 ans boo paree loo mën da naan dara te jàng rek lañ la sant yow. Mm-hmm. nga juddoo ba léegi jàng rek ngay def lan mooy sa profession nga ne dara. mais jàng nga téere yëpp conjugaison yëpp grammaire yëpp c'est ça qui est dangereux aujourd'hui c'est ça qui est dangereux Pape Sidi léegi nag euh, challenge bi xam nga fan la nekk mooy ñun ñi nga xam ne ne nekkuñu ay assimilé ñun ñi nga xam ne ne xam nañ ne ñii lii ñuy def loo nii baaxul affaire bi nii la doon léegi ñun ñoo ko war a def nii pour changer la donne et espérer avoir des lendemains meilleurs Pape Sidi ñu jublu si li nga xam ne ne mooy waxtaan bi Pape Sidi tey dafa am benn soxna soo xam ne ne comme te honneur aux dafa am benn soxna su baax boo xam ne ne ingénieur la environnementaliste la mi ngi tudd Mariama Badji Mariama maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Pape Oumar leen jaajëfal bu baax ci mhm. invitation bi. Mhm. bienvenue ah. merci beaucoup. mbaa yaa ngi ci jàmm maa ngi sant yàlla j'espère qu'on t'a donné une information que tu n'avais pas. Euh. Euh, jàng nga fi dara lu gàtt gàtt gàtt gàtt ah jot naa fi jàng. waaw kay li ngeen wax suba ba tey am na solo lool <laughs> surtout le fait que. dañoo tàmm di gis ni savant yi ñoom ñëpp ay nit yu ay tubaab lañu. alors que suñu maam yi daan nañ def yu ay jaloore pas jalo maa ngi naan jaloore sax maa ngi jub sax ba ne ko daan nañ def euh, ay kéemtaan daal yoo xam ne ñun ndaw tey jii nii nekk na loo xam ne ñu ko jàng école. Mhm. donc dañuy dugg école dem ba am yow nekk ingénieur sax am na li nga fi wax tey jii nii. Mhm. xaw ma ko woon. xaw man dama mës a jàpp ni Thomas Edison moo créé lampe à incandescence mhm. donc ñoo war na tax daal ñu gën a mën a gëstu mhm. xam sunu maam yi ñooy ñan lan lañ doon def mhm. comme ça ñu mën a di roy ci ñoom loolu am solo la ab sàcc Thomas Edison daal boo bëggee dégg-dégg ab sàcc la c'était juste une personne qui volait les œuvres des autres. <laughs> Mhm. <laughs> rien de plus. <laughs> jërëjëf soxna Mariama euh, moom comme présenté nañ leen ko li mu wax ñu dem si nga xam ne mooy sunu beneen gan di nekk benn ndaanaan boo xam ne ku yàgg dem sa saatu Sénégal yi xàmmee nga kanamam ma bàyyi ko mu nuyoo mam Abdou maa ngi lay nuyu. Pape ñu ngi lay fay Pape ñu ngi lay nuyu baax tamit. maa ba tey jàng nga fi comme li Pape li mu laaj Mariama rek ndax information jox de am na loo xam ne ne jotoon nga ko jàppoon xamoon na lépp noonu la demoon te demewul woon noonu dëgg la kay xamoon xamoon nañ tuuti rek gis mm-hmm. des moom mm-hmm. ngeen ñu ko jàngal ba ñu gën ko assimiler daal mm-hmm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Pape Sidi waaw ma bàyyi la nga présenté soxna Mariama mooy kan waa Mariama moom yow da ngay tabax waaw loolu da lay def tabaxkat bu jigéen moom ah maa ngi nii de. mbaa boo ñibbee doo mel ne maçon yu weex. <laughs> non xam nga tey tey tey li tey rek li may ñëw fii rek moo tax ma sol yi waaye d'habitude moom danga may gis ma weex tàll. ndeysaan sama tubéy samay basket teg sama casquette. environnementaliste et ingénieur. Mm. c'est-à-dire je construis en respectant l'environnement. effectivement est-ce que c'est possible de nos jours. bien sûr parce que tey li li gën a tax ñi koy def soo seetloo euh, bâtiment dafa nekk loo xam ni. dafa dafa fees en fait yow soo xëyee yaa ngi fi ngay liggéey yaa ngi ci bâtiment fi ngay euh, fi nga dëkk yaa ngi ci bâtiment donc on a des bâtiments partout on passe presque 70 pour cent sunu temps ci ay bâtiment lañ la ñuy nekk te donc bâtiment bokk na ci secteur économique yi nga xam ni mooy gën a polluer en fait pourquoi parce que dañuy utiliser matériaux yoo xamante ni tey jii nii bu ñu koy defar day am gaz effet de serre yu bëri yoo xam ni day yàq je environnement li ñu wër daal donc moo tax tey jii nii ñu ni dañoo war a gën a tabax mais di sàmmaale suñu environnement pour ñun ak pour ñi nga xam ni ñoo nar a ñëw ëllëg. pour des gens comme nous euh, qui habitons dans dans un pays où il y a des températures très élevées. Mhm. est-ce que mode d'habitation yi ñu dëkk dëppoo na ak suñu environnement. très bonne question Pape Sidi te foofu laa bëggoon ñëw sax parce que tey jii nii ñun dañoo jël euh, je veux un prêt à ñëw indi ko sunu réew copier ko donc alors tey fu ñuy tabax on a on a l'habitude de mettre du vitrage de pas prendre en compte l'orientation donc après day tax ñu utiliser climatiseur yu bëri pour mun a am confort bi ñu soxla ci biir mhm. alors que boo seetloo ñun suñuy maam par exemple Casamance casa étage yaa ngi fa casa impluvium yi c'était fait avec de l'argile donc argile nga xam ni moom lañ daan defaree ndaa xam ne boo si defaan ndox gis nga ndox bi dafa daan dafa daan sedd bu si yàggee donc looloo tax tey jii nii on construit avec argile boobu noonu mais pour que si biir boo si dëkkee doo soxla climatiseur day tax say facture électricité mu wàññeeku et donc après yaa amul produit chimique amul benn additif chimique donc yow di nga am confort bi nga soxla te sa wérgu yaram tamit euh, dara du ko du ko du ko yàq daal. yooyu yaa nekk di. waaw dafa mel ni man la de. li li li ko defaree rafet na de. <laughs> waaw waaye voilà comme euh, nit ñi dañoo tàmm di tabaxee donc on s'est dit que tey jii nii pour nit ñi mën a gën a accepter argile boobu noonu ñu tabaxee wala terre crue comme niñ koy woowee donc dañ ko war a def brique mu ndiroo nga xam ne nit ñi dañ ko accepter matériaux boobu noonu parce que souvent boo booy laajte ndax dañ lay laaj ndax terre crue dëgër na est-ce que mën nañ si tabax étage alors que loolu yëpp mën na nekk. Mhm. léegi yow ah, balaa balaa ñoo yeggali parce que ndax yow moom dëgg sa yàlla da ngaa nekk ingénieur nga xaw a particulier mooy 24 ans nga ba pare nekk volontaire si euh, benn benn association boo xam ne ne lépp li ngeen di tax a def du leen lu dul mooy forme ay nit si ñu nekk ay ingénieur mais tamit en tant que jeune leader des Nations Unies euh, da ngeen di def li ñuy woowee ODD mooy objectif de développement durable. mun nga ñu ñëwal si loolu. effectivement donc euh, dañu dama bokk ci ndaw yi nga xam ni moom la Nations Unies jël pour ñuy sensibiliser nit ñi waxtaan ak ñoom si ODD parce que objectif de développement durable nekk na loo xam ni. ça prend en compte lépp loo xam ni war nañu mën a permettre ñu gën a mën a jëm kanam donc moo tax ñuy jéem a daal fépp fu ñu mënti dem waxtaan si ak ndaw ñi pour ñu gën a mën a impliquer ku nekk fi nga nekk nga xool lan nga war a mën a def kenn bañ a xaar kenn ku nekk nga xool lan nga war a mën a def ba tey jii nii ñu mën a nekk ci euh, je veux dire boo xam ni en kii changement climatique dootuñu sonalati dañ fexe ba xool nu ñuy wàññee pauvreté inégalité yi bëri si dëkk bi mhm. donc jéem fee jëlee loolu noonu yëpp nekk nekk na lu am solo mais dafa am loo xam ne man Pape Sidi daf maa jaaxal. 24 mhm. ans nga macha allah mais maanaam sa sa xel ak sa xalaat. ñàkk ñàkk nga ko ñàkk nga ko si loo xam ne mooy luy doxal réew mi. Mhm. ñàkk nga ko si loo xam ne da ngay ak ko atteindre ak say objectif say pas-pas ak li nga bëgg sa àdduna buñ la déggee ni ngay waxee xam nga ne ndaw bu ñu tàggat nga xam nga lu nga bëgg mais c'est rare nga gis benn jigéen bu am quatre ans mu nekk si monde bi nga nekk maanaam qu'est-ce de d'être si concentré et d'être ci actif si sa domaine de si ce milieu d'évolution je je dire principalement sama entourage sama maam moo ma yar donc sama maam moo ma yar depuis ba ma nekkee xale donc lépp mm-hmm. luy wàllum environnement sunu kër dañoo amoon tool ci ginnaaw donc nawet bi dañ fa daan defar euh, ay bisaab ay gerte donc moom a tàmmal daal lépp luy euh, garab dañ koy aar donc ma bëgg loolu noonu mhm. te tamit mu ma daan nettali bu njëkk ba Casamance nan lañ daan tabaxee parce que joolaa mhm. mooy wax ni ñoom bu njëkk ba boo waree tabax daru sax nga jënd ciment dañuy jël suuf si jaxase ko ak ndox jël def dañuy à ma jël jox ko boobu mu jox la ñu tabaxan ñu tabax noonu mais ba ma demee commencé jàng génie civil dem ba si biir ci lay door a comprendre moom ba ma nekkee xale li ma daan raconté mhm. mhm. donc ci ci laa def parallélisme bi ñëw mu waxaat ma ko expliqué ma ko ci laa comprendre mais tey jii nii buñ ko doon proposé wee noonu nit ñi mën na am duñ ko nangu moo tax mhm. mais je dis principalement sama entourage la ak euh, ñi nga xam ni daal tout le temps ñoo lay ñaax ci euh, nga gën a góorgóorlu parce que maam dafa ma daan wax tout temps Sénégal ku kuñ ni maama moo ko yar rek da ngay nekk xale warut a tax nga ñàkk jom mhm. te tamit sa maam yar la waxut warut tax nga réew donc moo tax daf ma daf ma teel a encadré wax ma nii daal àdduna lépp looy def da nga siy dem ak fulla ak fayda mooy mooy mooy mooy de construction dafa dafa dafa am loo xam ne dañ koy gis chaque jour te duñ bàyyi xel mhm. mooy ndaa mhm. ban lañ koy defee en terre cuite nangam nangam te day sedd guy léegi façon wi ñu dëkkee ñun ci suñuy gox dañu am keneen ku ko indi. Mhm. c'est ce que je disais par rapport aux études tout à mhm. Mhm. mooy li ñu lay jàngal. léegi ñun am nañ luy créer ciment. c'est vrai. c'est pas mauvais mais adéquat ak suñu habitat. loolu moo waral tàngoor bi bu dee tàng par exemple yenn tàngoor yi doo ko mën a supporter da ngay obligé def recours à la climatisation ou à l'air conditionné. ventilateur. wala climatiseur pour nga mën a serlu. alors que boo tabaxee ak ban day sedd naturellement boo duggee ci néeg en ak néeg bu ñu tabaxee en argile néeg bi ñu tabaxee ban mooy gën a sedd mooy gën a neex mooy gën a nugg mooy gën a neex a dëkk ak lu mu tàng tàng mun na def ci biti 45 degré boo demee dëkk yu tàng yi comme Fouta. voilà comme ay Casamance. wala nga dem si yenn gox yi nga xam ne foofu challeur bi dafay extrême. Mhm. da gis néeg boo xam ne mën nga faa fanaan te doo taal clim doo da ngay sax tàngu ndax sedd. Mhm. mais tey mhm. on a réussi à faire comprendre à ces citadins mhm. comme ni ñu amee rêve dem toog ci bureau parce que c'est classe pour ñun que boo dëkkee ci këru ban yow da ngaa ñàkk est-ce que ban yomb na pour parce que tubaab yi ni seen environnement yàqoo ñun suñu environnement yàqoo guñ ko ñun on est euh, mais si benn niveau la ñu yem effectivement facile de faire comprendre au Sénégalais que ni ban moo gën ciment ñoo ngi jéem moo tax tout le temps li ñuy def mooy expliquer leen avantage u tabax ban parce que tey tabax ak ban parce que tey jii nii yaa ngi wax ci aspect économique bi Pape Sidi c'est important de le dire nit day ñëw ni ma est-ce que tabax ban moo gën a yomb tabax ciment ma ni ko il faut voir mm-hmm. parce que tabax am na li ñuy woowee un coût global donc investissement bi maanaam li ngay tabaxee ci saa si ak utilisation bi tey jii nii disons Pape Sidi yow mën nga ñëw nga ni ma da ngay tabax kër ciment 15 millions man la yokk si deux millions ma tabaxal la kër boo xam ni briques yi ban laa koy defaree parce que briques yi ñooy gën a tuuti. 2 mhm. millions nga si yokk mais yow boo tabaxee sa kër ciment 15 millions di nga teg climatiseur période tàngaay facture courant dina la xaw a rey alors que kër bi nga tabaxee ban loolu yëpp doo ko utiliser donc imaginez yow. ak tàngaay bi ni muy dem di gën di yokk sa facture doo yooyu noonu yëpp ngay cumuler cumuler mais dina dem ba ëpp 2 millions yooyu noonu de mhm. différence donc moo tax ma ni nag dañoo war a bàyyi di xool juste ci li ñuy investir ci saa si mais voir sur le long terme en fait mais en termes d'esthétique on va dire que ban rafetul c'est non actuellement aujourd'hui on fait du moderne avec la terre crue donc on fait du moderne parce que boo ko déggee ban ban ban nii rek tu peux te dire non ça fait ancien on va faire ça pour village yi lañ koy bàyyi et tout alors que non comme on va dire c'est c'est du cosaan amélioré mm-hmm. donc on essaie vraiment de faire du moderne des briques qui sont vraiment super jolies ba pare soo pare après mën nga ko enduire tu es pas obligé de laisser la brique apparente comme ça mm-hmm. donc tey jii nii mën nga tabax kër simon boo xam ne da nga koy enduire peindre ko nga dem tabax kër terre crue boo xam ne da nga koy enduire peindre ko également peinture bu adapté donc tant que wax duggoo si biir ba sentir yow fraîcheur bi doo xam ne lii ban lañ ko tabaxee. est-ce que enduire boobu parce que man bëgg naa am kër boo xam ne du début à la fin dara du ci am. Euh, par exemple ciment. Mhm. Uh-huh. est-ce que mun na nekk avec. non enduit bi da koy defaree terre bi nga defaree brique bi. au lieu nga def ko mm. ciment. parce que boo tabaxee voilà au lieu nga tabax boo tabaxee kii ban ba pare ñëw de si def ciment donc day dañ parce que mm. ñaari ànduñu. mais Pape man xam nga yéen yéen a ngi yem yéen yéen a ngi euh, yemale euh, li muy def si kër mais man je vois beaucoup plus large parce que ñun dañuy am ay produit yoo xam ne on a un problème par rapport à la conservation. Mm-hmm. comprendre nga fi may waxee. am na loo xam ne dañ koy def mais conservation bi danga koy mën a am parce par exemple soble bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy suulaat bu ñu ko defaree ba pare mais parce que on a un problème de conservation. pomme de terre on a un problème de conservation léegi ñi nga xam ne ne ginaar mais am na ñoo xam zone yoo xam ne xalaatoo faa yar ginaar par exemple Fouta xalaatoo faa yar ginaar. si non mais bu ma nee xalaatoo fa yar ginaar mooy. xanaa déggoo cuuju Fouta. léegi lu muy mel. ganaar lay nekk quoi bon pour mu nekk ganaar il faut mu nekk tuut. mais ba xam fa laa waxee Pape Sidi c'est-à-dire. ku ee eh, Fouta dañuy yar ginaar. waaw waaw ok léegi je me léegi rectifié wu naa Fouta day yar ginaar mais yar fa ginaar du day metti parce que am na yenn tàngoor yoo xam ne nag ginaar attanu ko. Pape Sidi yow tàngoor boobu yaa koy yëg yow bi fay door a dem mais waa Fouta. ils s'adaptent dans leur tàngoor. moom par rapport solution bi nga xam ne am na ko parce que yéen da ngeen yem si. Euh, est-ce que am mën ngeen si am ay grenier wala centre de conservation je pense que. bien sûr ñu ñu ñu beaucoup de personnes yoo xam ne dañuy yor ay poulailler dañuy ñëw wax ñu seen problème nañu franchement tàngaay bi daf leen di sonal. donc dañuy ñëw pour ñu proposer leen ay poulailler yoo xam ne c'est fait en terre crue nga xam ne duñu soxla euh, tàngaay bi dina du sonalat ginaar yi en fait pour ñu pour seen màgg gën a gaaw mm-hmm. maa gën a gaaw ok mais man fi ma doon gën a accentuer mooy da nga wax sànq benn produit du argile rek argile ak IFA lan mooy l'IFA. Tifa. waaw alors Tifa dafa nekk plante boo xam ne actuellement mi ngi encombré vallée du fleuve Sénégal. encombré. encombré parce que plante bi dafa gaaw a law. Mhm. donc fépp fu am ndox tey jii nii mbokk indi woon fii nii nga def ko bu ngelawee rek mën na gaaw a lawaat foofu noonu mais on s'est rendu compte que c'est un excellent isolant fii sunu dëkk Sénégal li ñu gën a sonal tàngaay bi la. donc dafay tàng tout le temps donc tifa boobu noonu tey jii nii on utilise ça pour faire des ourdis également des plaques isolantes nga xam ni yow li ngay tabax ci biir day gën a sedd parce que li ñu gën a soxal fu mu toll nii c'est pas comme à l'étranger nga xam ñoom dañoo soxla tàngaay bi dugg ñun dañoo soxla bloquer tàngaay mu bañ a dugg pour avoir benn fraîcheur boo xam ne nañu permettre ñu am confort sans avoir recours au climatiseur. Mhm. pour bañ a polluer. c'est ça coûte cher <laughs> kon baax na léegi euh, mais léegi loolu noonu boo doon ko defee ban impact bu positif lay indi sur euh, de manière environnement si environnement wu euh, fi ngeen ko def par exemple boo leen tabaxee kër googu noonu fi ngeen ko tabaxee est que dina am impact positif si condition environnement bi et tamit si à l'intérieur est-ce que dinañ mën a am qualité air bu baax respiration bu baax maanaam est que amul ay effet négatif par rapport à l'environnement non pas du tout xam nga tey jii nii ba soo seetloo produit yi ñuy tabaxee produit dafa am produit chimique mhm. additif chimique yi daf si bëri alors que tey booy tabax ak ban ak terre dafa nekk lu naturel donc yow li ngay respirer air bu sain lay nekk mhm. donc maladie respiratoire yi doo doo ko am tout ce qu'on appelle maladie de l'habitat également dû mhm. aux produits yi ngay respirer produit nocifs yëpp doo ko si fekk donc loolu bokk na ci avantage wu euh, terre crue également am naa ku ma lay booleel euh, tabax nite d'accord Mamadou Dia Dia Mamadou moom ci li nga nekk la nekk defar na ay cases des tout petits mais boo seetloo tabax yi ñu tabaxee euh, ban moo gën a yàgg. bu baax Tombouctou. bu baax bi. mosquée bi pour yow loolu ban année la. ay 1800. waaw avant. décent. waaw léegi Pape di sànq da laaj benn laaj boo xam ne dañ koo war a régler mooy lan mooy comment on peut démystifier. ne ñun bu ñu bu ñu dëkkee si kër boo xamee ne dañ naan kër gi lépp ban lañ ko tabaxee du ñu am un blocage social ak un blocage. loolu bu nit ñi amee blocage yow nga débloqué wu ci biir yow. mais boo si débloqué wu si biir sa da nga indi sa njaboot maam dañoo jàpp ñu maam yow li nga wax sànq mooy loolu say de manière générale lu li nga xam ne mooy suñu acquis suñu force dañ gëm gëmloo ne lu lu lu lu ñàkk fayda la. est-ce que mën na defar ay immeuble comme yi ñuy gis ñu taxaw. bien sûr bien sûr parce que tey jii nii tu tu tu as la possibilité booy tabax kër gi nga nga def ko sans poteau mais loolu mën nga yeb un R plus 1 mais sans poteau loo xam ne ban kese lay nekk mais pour aller en hauteur tu vas faire des poteaux ce qu'on dit un système mixte donc. Euh, cosaan li may wax cosaan rek ak moderne donc du coup tu vas faire des poteaux après nga utiliser briques yi ci biir comme pour tes murs. Mm-hmm. voilà donc loolu te ça la même euh, Papa Mar dafa seetlu. ay COP 21 en ce moment COP 26 si je ne me trompe COP 27 la COP 27 se prépare pour l'Égypte. pour l'Égypte euh, mais COP 26 laa mujjee dégg ci affaire environnementaliste. Mhm. Mhm. man bu ma demee ci dëkku nasaraan yi wala Pape Omar euh, Pa Pape Samba tu as l'impression qu'ils ont fini quoi. Mhm. amatul dara lu ñuy tabax si dëkk bi parce que. même espace yu daw yi dañ cay def ay gazon. waaw tali yi c'est bien organisé. dama naan mais yii lan lañ war a defaraat ñun il nous reste et de et beaucoup de choses à faire ñun suñu dara commencé gul bay taxaw mais aujourd'hui quand on parle de changement climatique mm -hmm. quand on parle de chamboulement d'environnement mais dañu ci impliqué ba ñun dañ ciy bokk est-ce que on doit être au garde à vous comme les autres comme Chine par exemple wala comme euh, France wala voilà, euh, l'Europe je veux dire mm -hmm. est-ce que ñoom li ñu yàqoo ci environnement est-ce que ñun noonu la ñu yàqoo en fait li ñu war a xam mooy Euh, planète bi benn kese la. Hmm. amul Europe la gën a yàqu wala Afrique la gën a yàqu wala Asie la gën a yàqu. ñu on pollue pas mais même su fekkee ñoom ñooy gën a polluer nous on ressent les effets du changement climatique. ñoo ngi koy dund bu baax donc loolu war nañoo gën a yee ñu gën a góor góorlu xool nan la ñuy comporté woo ba mën a gën a sàmm àllam bi. ok moi je, c'est eux qui, qui ont les grandes usines c'est eux production à outrance nous on n'a rien. comme da nee na planète bi benn planète la. mu ngi mel ni mu mel ni nga nekk sa benn kër rek comme ni nga ko résumé benn kër la. voilà c'est ça néeg bii di saxaar tamit de kër gi dinañ yéeg saxaaru kër gi. Euh, euh, waa saxaar bi am nekk si kër gi. ma ni ko loolu kese la moo tax jii nii ñun bu ñu toogee nii non ñun on n'a pas beaucoup d'usines ñun pollué ñu continuer sunuy comportement planète bi dafay gën a yàqu et plus mhm. muy yàqu plus ñu nar a gën a yëg effet donc moo tax suñ si teelee jóg teel ak orienté suñu développement ci loo xam ne dina gën a sàmm environnement bi boobaa ñun dootuñ si gën a gaañ Mariama Badji yow nag ab championne nga parce que jël nga premier prix international des dix mots de la francophonie mais quatrième prix au Sahel Innovative Challenge loolu ban concours loon Euh, c'était un concours lancé par le PNUD donc c'était le Youth Connect Sahel donc euh, qui s'est tenu au mois de novembre passé ici sur Dakar donc qui regroupait les les dix pays du Sahel où vraiment on parlait d'innovation mm -hmm. et on a eu à remporter le quatrième prix. innovation loo leen innové foofu loo leen fa pare. dañoo dem wax leen rek dañuy def ci wàllum tabax bi. Mhm. terre crue ak difa bi ñuy utiliser. Mhm. ndax euh, pour mën a gën a sàmm suñu environnement. pour nit gen gën a mën a sàmm seen i wérgu yaram également. en deux en deux Abdou Karim Sall baal ma. Mhm. yàgg Abdou Karim Sall ngeen waxtaan. ah déedéet. ministre de l' environnement. déedéet ak yéen li ngeen def ci environnement yëpp. <laughs> ministre de l' urbanisme. Euh, non plus. quel est le rapport que vous avez avec l' État. à ce jour. vous êtes récompensé par les organisations françaises. des organisations des na Pape Pape des na. booy bi daa mel ni toj na Dubaay de 2020. <laughs> mais attends speaker of YAF Circle à Expo Dubaï journée mondiale des villes de 2021. waaw léegi. ñu mel ni waaw dama lay laaj ne la yow. nan la. Euh, Mariam Badji. nu mu tuddee ci pas Mariama Badji je connais son nom mais par exemple da nga lim léegi ne un truc avec un rapport avec la France si je ne me trompe pas. avec le PNUD oui waaw premier prix di des dix mots de la francophonie. francophonie. polytechnicien de l'année en waaw. nekk speaker Yoff Circle Expo Dubai 2020. waaw Dubai nekk quatrième prix au Sahel Innovative Challenge. Sahel Innovative Challenge. nekk première sénégalaise <laughs> waaw nekk première sénégalaise à faire partie des Young Leaders for the SDG endorsed by uh, United Nations no Nations Unies. foofu Amérique waaw nekk nekk organisa organisation des tables rondes virtuelles lors du journée mondiale de l'habitat en deux mille vingt et nekk instigatrice d'une journée de reboisement reboisement au lycée John Fitzgerald Kennedy. c'est son initiative personnelle. waaw nekk speaker tamit au SDG Action Zone 2020. léegi man daal li nga fi def yépp ak njariñ bi nga am ba àdduna bi yépp di la xàmmee Dubaï États-Unis France. Euh, l'Afrique sahélienne. Eh, elle n'a que 24 ans macha allah je touche du bois. tu tu as touché du la alaaji <laughs> bois euh, kon bu ma génnee ut bois bu ko. maanaam dégg loolu nga def yëpp ci ay ma jàpp ne. yow Sénégal lan la la defal. jafe torop ma tontu la. ani dina ma jafe torop ma tontu la. <laughs> <laughs> Euh, parce que dañoo nekk dañoo jàpp ni dañoo nekk ndaw. di liggéey. laay bu ngay rafetal. def laay yaa ngay euh, rafetal. def en tout cas non même pas sax mais dama lay wax dag maa laaj ma dama lay tontu rek. Mariama sa première réponse doy na ma. Hmm. Allahu akbar. sa première la. non mais sérieusement tu vois comme ça. Uh-huh. on en a reçu combien dans ce plateau. wallaay ñoo xam ne ay ndaw la ñoo xam ne réew mi mën nañoo sukkandiku ci ñoom ngir. ngir développé wu ba faw fii dañ leen naan mais xoolal li muy defar nii ñaata ni si mën a di mën a dimbalee ñiy bay te am problème conservation dama dem Grand Yoff di loolu laa wax damay ut agresseur laa bëgg invité ma dem Grand Yoff toog ak ay gars yoo xam ne ay defkat lañ ci ay milieu bi lañ nekk dañ ma wax ne ma ñun politiciens yi pouvoir comme opposition ñooy génnee jaas yu bees tàq jox ñu génnee cent mille wala un million jox ñu pour ñu xeexal leen Si on a des gens qui pensent comme ça et qui nous dirigent, des personnes, des championnes comme celle-là, mon ami, euh, attends, après beneen réew koy jël jëriñoo ko ñun toog naan non dëkk bi jeunes yi defuñ dara fekk jeunes yi ñu ngi rey seen bopp. billaay billaay mais ñu ñu bàyyi Mariama mu souffler tuuti ñu dem waxtaan ak euh, beneen champion boo xam ne il a fait un parcours extraordinaire fi mu jógee ak fi mu dal. ak mindset bi mu am je pense que Pape jot na tey ñu waxtaan wan ko sénégalais yi ne jàmbaar dawul dafa uti doole Pape Sidi. yàlla man dama fi mu nekk dama soke daal. loo soke. non c'est que damay xool ba mu yàgg ma ne attends kii bu doon cëxagun kat nii. Hmm. toj na dëkk bi. kan Mariama. Mariama mii yow Mariama bàyyi li ngay mais est-ce que mënul <laughs> ay tabax ay environnementaliste ay créer ay système révolution boo doon cëxagun ministre bi tëj nan nga nekkee <laughs> environnementaliste 24 ans tu fais le tour du monde on parle de ton pays à travers ton image ton travail le ministre de tutelle de l'environnement ne te connaît pas mais ça je te dis mais il travaille pour quoi il travaille pour qui c'est quoi waaw euh, elle a la a la même réponse que Ndeye Fatou Mboup waaw waaw boo nekkoon géwél nii naan ko waaw waaw sàll gaari lam tooro buur gédee yaa ci réew mi Macky Sall yow la wóolu léegi <laughs> non mais waxuma kii Badji maanaam ministre de de de l'environnement ah. c'est c'est des championnes comme ça qu'on utiliser pour seen xam-xam. non rassure-toi bu may dellu Casamance laa nar a dellu incha allah. yow uy ma pour wane la suñu champion ñi ngi dem. booy kii euh, kii waaye kii guja maanaan gujaa bi. booy jaandi xam nga ko te mu noon fablab waaw fablab waaw kii booy waa jële waa jële ah. booy wuj mu jëloon première prix chef de l'état euh, en innovation technologie mi ngi France léegi sama xel léegi mu ñëw si même tut Bamba Diaby ah Bamba Bamba nga France yi dañ yeggali rek dañ muñ suñu suñu champion yaa ngi dem tugal ñu ñu waxtaan ak maam maam Abdou Ndoye Mame Abdou maa ngi bàyyi waaye wane booy parce que booy dañ leen di wane beneen dëkk yi jël leen te ñun dañ koy wane pour suñu waa dëkk njëriñoo leen danaa bàyyi di leen wane yéen ñu waxtaan ak ñu waxtaan ak Mame Abdou Mame Abdou Mame Abdou Ndoye Ndoye Mali Marab jërëjëf déjà merci parce que lu bëri ci booyu Sénégal yi nga xam ne amuñu liggéey wala dañ naan amuma liggéey rëy dafa bokk si lu leen tey ñi nga xam ne xamuñ Pape Omar Mame gardien la. de but. waaw nag góolu na championnat Sénégal. góolu na Port. góolu na gore góolu na Géejawaay. Mhm. góolu équipe nationale locale. di ngeen gis ci kanam léegi image yi. tukki na ci yenn réew yi. ñu bàyyi ko mu gën a présenter boppam ñu jublu ci waxtaan bi Mame Abdou Ndoye maa ngi lay nuyu. lay fay Pape Omar. Euh, Mame Abdou ku la xamul kan mooy Mame Abdou Ndoye. nit bu oyof la doon def sport euh, maa ngi déparé Kadash Lab mhm. euh, bi ma jógee Kadash la mhm. euh, benn année laa fa góor ma jóge fa dem Rufisque di seeti sama maam bi jur sama yaay